waa kay jërëjëf soxna Binta ñu ngi santaat bu baax a baax a baax comme niñ ko baaxoo defee rek xam ngeen ni waxtu wi saa yu jotee rek dañuy daal indi li nga xamante ni mooy yóbbalu bis bi yóbbalu nag saa su nekk niñ koy faral di waxee xam ngeen ni ñun ñëpp dañoo nekk ci ab tukki tukki bii nu nekk mooy fii nu nekk mooy àddina fa la ñu jëm mooy àllaaxira àdduna nag boo fi nekkee faw di nga kër këri ngir am loo jagale sa àdduna waaye it na bàyyi xel ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi la doon bàyyiloo xel ni la àdduna bii kët danga nga fee jaar waaye fa nga dëkk ëllëg mooy yowmal qiyaam te waxan naa ko fii démb soxna kii waxan naa ni mhm. euh, sëñ Tuubaa daan na ko bàyyilu xel noonu nga xam noonu la ko alxuraan tudde woon mhm. te mooy dunduk àllaaxira moo gën dunduk àdduna mhm. loolu nag nit ki bu ko bàyyee xel day mel ni léppam dana mën a jag nu muy jage mooy saa su nekk day fexe bay def lu baax saa su nekk day fexe ba lépp lu muy def mu dëppale kook lu baax loolu nag su ko defee day mel ni eh, masalan doomu aadama mi xam nga bu fi nekkan tey te nu ngi wut liggéey du am du am mu mu mukk ci àdduna lu mu lu mu a lu mu mën a jagale àddunaam mm-hmm. kon doomu liggéey bi muy liggéey ci àdduna mooy tax mu mën a bu waree tabax tabax ko su waree am soxna am ko li ko war lépp mu fexe di ko def ci alali boppam. Mm-hmm. looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day xam ne dafay favoriser liggéey ndax day wax ni. Mm-hmm. Euh, dem na ba àgg ci importance bi liggéey am mooy xam nga nit su dee liggéey kon mi ngi fegal boppam ab laaj nit su dee liggéey rek mi ngi fegal boppam ab laaj. Mm-hmm. te laaj yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni loxo bu féete kaw moo ma gënal bu féete suuf maanaam ñiy joxe ñoo ma gënal ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci laaj. ba àgg sax ci importance bi liggéey am nga xam ne kon àdduna nit bu fi ñuy mënta bañ liggéey liggéey boobu ngay liggéey nag dafa amaat geneen jaamu yàlla gu ci ne jaamu yàlla gu ci nekk nag liggéey bi xam nga danga nga ci am xaalis di ci takk soxna di ci am oto di ci am foo dëkk wala nga luye ko di ci joxe dépense loolee nag dafa amaat yeneen tuyaaba yu ci nekk yoo xam ne ëllëg yàlla dala koy dencal yowmal qiyaam moo tax kon gis nga dundug doomu aadama dafa lëkkaloog dundug àdduna gi dafa lëkkaloog dundug doomu aadama Euh, tey nag nuy indiwaat waxi Sëñ Tuubaa yu amaa am solo waxam yépp am solo waaye léeg-léeg da ngay gis ni dafa indi aayab alxuraan tënkal nu ko tënkinu gàtt woo xam ni maanaam doomu aadama bu nekk mën na cee jariñu Sëriñ Tuubaa dafa wax dafa dafa mas a wax ni waf alul xayra laalakum tuflihuuna daane ku bëgg lool nag dangay ngay yéene aw yiw maanaam xam nga waf alul xayra mooy na ngeen def lu baax laalakum tuflihuuna kon ndax xëy na ngeen noppalu daan ne nag képp ku bëgg a noppalu da ngay da ngay def lu baax daan ne ku bëgg loolu nag dangay ngay yéene aw yiw kon soo bëggee def lu baax li nga war a jëkk def ci sa xol mooy fexe ba yéene aw yiw mbokkum taalibe mii dama ko yéene aw yiw mbokkum jullit mi may dajal dama ko yéene aw yiw ba ci mbokkum jullit mi nga xam ne ab jullit la nga xam ne gis naa gémmiñam mu ci tuddee mu ci tudd laa ilaaha illallah rek te sëñ Tuubaa dénkaan la ko ci beneen dénkaan moom moom dama koy dama koy yéene aw yiw su ko defee waf alul xayra day daal dikk laalakum tuflihun daal ne ndax aw yiw ku ko yéene wax ko te ku ko wax def ko xam nga tey damaa yéene soxna Faatu aw yiw soxna Faatu mu naa ma ne ko del jaamu yàlla kon yéene ji yëmuma ca waaye wax naa ko waaye def nga mooy su may jaamu yàlla daal di wax soxna Faatu ni ko kaay ñu jaamu yàlla kon dafa wax ni ku ko ku ko yéene euh, ku ko wax def ko te ku ko ku ko yéene ku yéene aw yu wax ko te ku ko wax def ko daan ak texe mi ngi juddoo ci jëf yu yiw yi texe doomu aadama goo gis mu ngi juddoo ci jëf yu yiw yi maanaam lépp loo def muy aw yiw xamal ni loola lañ la ci faye mooy ak texe daani naka noonu ak texee di mu ngi juddoo ci jëf yu bon yi kon koo gis mu texe daa nangoo def aw yiw ak di ko wax koo gis mu texee di daan noor ci yi nga xamante ni amul aw yiw ba pare di ko def daan ne ku saxal yéene aw yiw ak wax aw yiw ak def aw yiw ak taqoo aw yiw ku la yéene aw ay wala mu wax la ko wala mu def la ko du la lor day dellu fa mu jóge woon ci mbootum li suñu borom wax ni man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha daan ne képp koo xam ne yow da ngaa saxal di yéene aw yiw waaye moo ca di ko wax waaye di ko def ak di ko taqoo képp koo xam ne yéene na la lor lor joojee day këpp waat ci kawam mm-hmm. ci waxi suñu boroom ji mu wax ni man na amila saalihan ku jëf aw yiw fa li nafsihi boppam la ko defal mm-hmm. wa man asaa koo xam ne ñaawal na digganteem ak boromam digganteem ak doomu aadama yi fa alayha boppam la ñeel mm-hmm. kon gis nga yéene aw yiw ni mu amee solo ndax ku yéene aw yiw di ko wax di ko def boobaa yow la ñeel te ku la yéene ay lor boobaa day delluwaat ci moom mooy aaya bi noonu mu ko mujjee man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha loolu mooy sunu yóbbalu tey yal na sunu borom defal dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, macha allah jërëjëf sëñ Koso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci yóbbal bu am solo boobu nga xamante ne indil nga ñu ko tey muy yiw doon lu am solo yéene yéene nit ñi yiw waaye it fexe ba di leen di leen ko diggal fas yéene ko jëfee tamit mu doon lu am solo ñu ngi la siy jaajëfal bu baax a baax sëñ Koso.